bismillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa abi bi fiika bismillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa abi bi fiika الأمر يا من لا شريك له وفي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي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 بزول يا مليك bela بالبيجو دل منك يا الله خدم am mbégte lool ci ñëw fii ci turu sëñ Abdou sëñ Ahmadul Makhtar. ci màggal gi nga xam ne seen la mu màggalu Touba waaye bis bi màggal yàgg nañ koo def bis bi li tax mu am solo dafa téeméeri at yi ci hijri muy bis boo xam ne sëñ moom daa bëgg nu murit yeeg jullit yëpp xam ne bis bii la sëñ Touba ñëwoon fii ci tuuba ak la ci Cheikh Moustapha daj ak la sëñ bi waxoon fexe ba mu ñëw fii ci Touba yàlla def nag yow la yàlla jox mu daje sa toogaay muy centenaire bi ñëpp yéene la ko tam ndax xam nañ sa liggéeyal sëriñ Touba ci xalifa yi ñu fi jëkk jaar yépp nag ba lii tegu sa loxo ñun fekkee nañ fi lu bare bare bare te kuy murit rek ci Pastef ak liggéeyal sëriñ Touba rek mën na koo roy ci yow loolu moo taxoon sëñ Ahmadou Makhtar nee na sax waxtaan waxtaan na ca yow mu ne sëñ bi bi ma ko waxee daf na ma moom moo ci jiitu ndax lii lu am solo la waaw loolu moo tax nag ñu ñu am mbégte lool ñëw fii dañoo ñëwaat rek pour di la ko waxaat rek confirmer rek wande yëfi moom sa yëf la yow lañ koy defal waaw bëgg nga ñaanalu ci bu baax a baax a baax jàppale leen saxir wa baatin ndax yëfi mën a mën a réussir ndax àdduna bépp lañ bëgg fu ne ñu defee ko fa ñu tam ay conférence yu bari ay ay kii borom xam-xam yu bari dajale nañ leen ci euh, région yëpp lañ bëgg a dem tam fu ne ñu def fa ay conférence ak nangam gën a la xamee gën koo tasaare loolu daal mooy li nga xam ne moo taxoon ñëw di la ko wax ah, incha allah loolu mooy yitt ji waaw loolu mooy te lii day tax sax bu taalibe yëpp ñu la gisee danañ xam ne lii sa yëf la dañuy tax engagement buñ ci gënoon am ñu gën ko ca gën ko ca yokkata waaw jërëjëf Mbacke loolu rek moo doon ah, bit waaw sant na bu baax waaw waaw baax a baax a xam na ni mu demee itam ni ngeen ci bëgg lépp ak ngeen xam nañ ko bu baax a baax parce que nañ ko ànd ak yéen ndax moom ñëpp a ko ñëpp a ko bokk te te te lu mun la ñàkk la ndax man noonu may wax yoon wi yoon wi bëgg sëriñ bi ak topp ko moom mu ak si moo ko fi andi waaye taxul ñu xam ko taxul ñu dund ko xam léegi nag xam ko xam léegi dund ko loolu mooy mooy mooy la ca mooy la ca des loolu nag dëgg la amul yem waaye waaye war nañ ci jéem suñu kéem ndax sëñ moom mënees nekkul a xam eh, waxu ko di ko dund waaye nag ala kulli xaal itam eh, moom moom moo moo moo war a a doon suñu yitte kon nag eh, fi mu toll nii moom alhamdulilah rabbil aalamiina xamle ko ak dund ko rek moo ci des moo des suñu gëm kàttan nag loolu nag kon bis boobu moom kon dara jiitu ko ci loolu sunu wax fa daal yi ma di ko wax mais wax ne euh, fi mu àgg euh, bëgg sëriñ bi ak topp ko rek moo ko fi indi waaye nag euh, taxul ñu xam ko taxul ñu dund ko kon nag li ci des mooy jéem waxtu wu ne mu suñu te jëpp ñu def ko ci jéem koo xam jéem ko dund loolu rek la rek la incha allahu am donc daan daan gën a yeesal jaayante ci ci sabab si gën a fedd suñu gën fa fas yéene ko gën a ànd ak yéen incha allah jërëjëf. jégalu bu baax Mbacke ndax sëñ bi bu xasee yëkkati kàddoom waratu ñoo yëkkati kàddu waaye ni ko suñu am suñu seex waxee léegi ginnaaw ku tedd ki bi mu ñibbi Tuubaa ak léegi ci atum hijjiriya bi mooy téeméeralu at bi ñu jàpp nag ginnaaw téeméer at ginnaaw sëriñ bi ni nga ko waxee léegi am na taxawaay boo xam ni waras na ko cee taxaw ba ñu ko umpale gën gën koo xam bu baax ñi ko xam itam yokk seen xam-xam ci sëriñ bi ndax téeméeri at yi bari na loo xam ni xew na ci bari na loo xam ne am na fi ñoo xam ñi ko fi wutu ñëpp ba sa jëm ji liggéeyal nañ ko muy liggéey bu ràññiku boo xam ne buñ ci sukkandikoo mënees naa xam kan mooy sëriñ bi mbaa mënees mën nañ dolli ak leer ci moom ci biir loolu nag euh, bay Ahmadou Barxa bi mu woowee njaboot gépp nag la la woo amul fu mu ko yemale ñu def réunion ci bayti dem ci moom mu ni woo yónnee suñu Ousmane ci yow sàkku ndigal ba nga jox ko waaye nañ delluwaat ci yow euh, leeral la ni nga xam ni noonu la jàpp ne bu ñu ko defee dina gën a yaatu dëppook téeméeri at yi mooy su insha allah ci sa ndigal euh, fukki fan ak ñett ci weeru juillet bi ñëw ñu dem Masalikul naan man faa def ndaje moo xam ne képp kuy kilifa dañ lay invité nga ñëw fa waxtu boroomi xam-xam yi nga xam ne ñooy sañ njaboot nag te dëkk Touba ak ñëpp nga xam leen ñoo fay fas yéene waxtaane bi ci wàllu xam ci wàllu développement ci wàllu liggéey ci wàllu yar fànn gu nekk am na ko koy waxtaane hmm. fukki fan ak ñett lañ ko bëgg a ubbee ca Ndakaaru incha fa jógee dem Louga xam nañu Louga euh, am na taxawaay bu mag ci yoon wi te soriwut ak ndar itam hmm. su ko defee ñu waxtaanee fa itam euh, maanaam téeméeru at du ca mën duñ ca mën a waxtaane waxtaane foofu ci Louga ñu fa jógee njaareem gi nga xam ne fa la lépp xewe eh, ci ñaar fukki fan eh, ci weer wi ñu ñëw tëjee ko fa eh, def fa conférence bu mag itam yëpp ku fa mën a ñëw ñëw fa ñu waxtaane waat fa la nga xam ni ndax gis nañu ni fonk gi nga fonk ak ni nga koy dundalee ba weer wi su teroo tamaxare gi ñëw nga dem njaareem daa ko fa def ànd ak soo ko ñëw fii loolu lépp moo tax xam naa bi ñu waxtaanee ni nañ ko defee foofe tëje ko fa suñ magalee ba ci suba nag ñu def li wax synthèse xool euh, liggéey bi luñ ci amee ak luñ ci nu mu tuddee loolu lépp nag dañ ko bëgg def ay téere euh, ci làng yëpp suñ borom xam-xam yi dajalee seen xam-xam ba noppi ñu def lépp euh, ay téere nit mën koo jariñoo loolu daal mooy li nga xam ni moom la sëñ bi waxoon nañu ànd ak ñi nga xam ñëpp seen njaboot lañu ñëw tënkal la ko su ko defee itam dañuy sàkkuwaat ci sëñ bi rek ndigal yi gën a dëgër ci taalibe yi ba ci Sénégal itam mañ ko dundee ci réew yëpp loolu rek mooy tànk ñi ngi jégal bu baax nag xat-xat yi tey ñaan nga yàgg fi loolu te wér ci barke Cheikhul Khadim baax baax loolu rek la loolu rek moo fi nekk moom dañu dañu bi rek mooy liggéey bi doo sëkk biir bi tey ëllëg kon te loolu loolu moo ci jiitu waaw xam ne xam xam le ko xam ko xam le ko rek kon nag jërëjëf ñu ñu ñu ñu ngi ko jottali mboolem mboolem mbokki taalibe yi xam na loolu loolu amoon yéen yéen yitte loolu sax dakk ci eh, ittewoo sëriñ bi ak sax dàkk ci liggéeyal ko eh, kon nag na kon na kon mboolem ku di ku ku ku ku ku taalibe mboolem mu taalibe yëpp murid yëpp ñu ngi leen di fàttali eh, bis boobu boobu sëñ Ahmadou Mokhtar eh, ñu ànd ak bokk yi njaboot gi fas yéene koo def eh, ñëpp ko bokk ñëpp nañ ci nañ ko nañ ko àndandoo rek te te gën cee yokk suñu itte gën cee gën cee gën cee sàmm suñu positif gën gën gën ci euh, taxaw bu baax a baax a baax taxawaay rek mooy am solo euh, yombul waaye euh, mënut a ñàkk kon nag loolu lépp bu ko tax taxawaay la rek boo xam ne dañ ko war a bokk taxaw ko taxaw taxawal ko sëriñ bi sax dàkk rek ci eh, ci ci ci liggéey ci jaamu yàlla bëggee ci noonu ak sax dàkk ci liggéeyal ko rek tax jërë ngeen jëf قدوس متليا علي وعن كل يوم ويا بنفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام الله